bismillah dalen ak Jam, ci chaîne bi ngeen tamul gouvernement XXL bi Ousmane Sonko taxawal ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ñom la yene kay yeb daldi di am di benn fan avril la direct news ci xët bu premier ministre ba Mohamed Boun Abdallah Dionne dem na ca France gamu don fajo la noppalu ko melni kon Sénégal perte na doomam ju màgg la levé bi le jour fin de mission ci premier ministre ba classe politique bi ñëpp ko rendre hommage Vox Populi né unanime la classe politique rend hommage à un grand serviteur de l'État et fin intellectuel intellectuel Mohamed Boun Abdallah Dionne doomu Gossas ba Direct News di ñu xamal ne feebar moo ko tëraloon ba bokkul sax ci ñi nga xam ne ñoo doon sànni carte ci élection présidentielle yi ñu weesu taalibe murit bu mag ba dem na askan we classe politique bi ñëpp ànd booloo di ko ñaanal ñi kenn narta fàtte ci ñaan mooy gouvernement bu yees bi Ousmane Sonko taxawal gannaaw ba ko président Diomaye tabbee ilimaanu jawrin yi teg na bu njëkk ne daal muy xaar mooy action ca Vox Populi ñu mën cee nemmeeku ay nit ñoo xam ne ñu am compétence lañu ku ca nekk ñu teg ca place ba nga xam ne moom nga mën moom nga mérité gouvernement de rupture la Ousmane Sonko woote ca libération mel ni kon nañoo delloo sa ñeneen ñi nga xam ne système bi da leen général Biram Diop ak yenn càkkuteef yi mu defoon ñoom ñëpp di ay anti système dëkkee woon bras de fer ak nguurub Macky Sall gi fi jógee l'info di ko feelu ne acte 1 daal di teg Sud Quotidien ne rupture ba moom ma ngay dox Ousmane Sonko koy wëyal ñu bees la ñu bees tàq la jël dugal leen ci gouvernement bu yeesam bile ku nekk ànd ak sa compétence mën li ngay def xam li ngay def xam na nga koy defee loolee la Ousmane Sonko jiital lépp mu teg ko ci juróomi priorité yoo xam ne gouvernement bile moom la war a doxee l'informateur ne ku ca nekk ca poste poste ba nga mérité dong lañ la tekk cohérence gu mat sëkk moo am diggante département ministériel yi ak secteur d'activité yi bés bi la jour ba tey ca gouvernement bu Ousmane Sonko ko boole kook nataalu gis na ci boppam El Malick Ndiaye ma nga ca biir Biram Souleye Diop ma nga ca biir Moussa Balla Fafana Daouda Ngom enquête ne Ousmane Sonko ma ngay teg ay jéego jëm ca rupture ba mu daan woote tàmbali na ko ndax fesal na liste jawrin yi nga xam ne ñoo nar a bokk ci gouvernement wam expertise xam-xam compétence la jiital tekk ci kaw lépp lu ñeel wàllum politique les échos ne xel mën naa dal njortu mën naa rafet ci Ousmane Sonko ñi mu àndal ngir gouverner Sénégal compétence rek la xamee ña mu àndal fas yéene wëyal ñaar des Affaires étrangères, général Biram Diop, ministre des Forces armées, Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean-Baptiste Sissine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Biram Souley Diop, ministre de l'Énergie, des Mines et Pétrole, Abdurrahman Sahar, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Abdurrahman Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Alioune Sal, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, équipe gouvernementale Ousmane Sonko bile SDL 24 24 yaakaar mën naa am Ousmane Sonko lancé na bu projet bi kii équipe yëpp di xaar Khady Diène Gaye la ministre des sports de la jeunesse et de la a jeunesse et des sports la noonu la ko yor yor bi feeloo ne la nouvelle patronne des sports Ousmane Sonko ak président Diomaye ña ngay doxal la duo fay Sonko noo la leen ndongo si laa tuddee boole kook sampawlaaj ndax dinañ mën a génn ci système dette bi nga xam ne réewum Sénégal doon woote woo émergence fa lañ Sénégal réew mu bari bor la en tout cas ñom ña ngay doxal Ousmane Sonko mom la Vox Populi fessel nih. gouvernement bu yes bu dis gan mom la taxawal ki taxawal ba tey président Macky Sall di Ismaïla Madior Fall ba yeegul ca enquête ma ngay wax nana président Jomay da wara a décret ba mu jël ba mu set décret bi président Macky Sall jëlon lat mo fi juggé les échos nan Ismaïla Madior Fall met en garde Jomay et lui demande retirer le décret mo man kay dànkaafu di sakku ci mom mu retirer boobu ndogal la mel ni kon ci l'indépendant ma nga nana war naa xoolaat taxawaayam ña seen taxawaay néew lool ci gouvernement bu yes bu Ousmane Sonko jigéen ñi Sud dikk ci lu yaatoo yaatu ci Khady Diène Gaye ministre des madame Dione moom mi Yankhoba Diattara sanctionné woon ba affecté ko jëlee ko Dakar Ousmane Sonko jëli ba tey dikk ci gouvernement bu Ousmane Sonko bilee sampaaw laaj ne lan la nar a bu demee ci assemblée nationale bu dee dafa am jokkalante gu dox ci diggante diggante taxawu Sénégal ak 14 députés PUR 11 députés ak waa PDS 25 députés fii ak tontu bi di ñëw ñu stade ñaxate ak Niom, ñoom ngay wër temps de jeu Nicolas Jackson di yootu Biom, biwoom été bii di ñëw nar naa neex ci nga Séville Newcastle Palace Niom, ñëpp la intéressé ñu tëjee ko ci Jidda caaray kaw daraam ba fa am jéye ju doy waar jàllu xaru la ko waral di ab bor boo xam ne la jublu woon ci ngir mën jël soxna cousinam doon ko dina ko ci ko mu dugg ci yamale fa ay bindaw bataaxal bàyyil ka fa soxnaam boo xam ne mooy gën a dugal cousinam ngir mën cee xuus demal page 3 bu Les Échos fa lañ koy yemale joxante dig dajee altine incha allah